yeeg xarit yi ñoo ngi leen di euh, nuyu di am yaakaar nak vraiment nek yeen ñëpp passé ngeen un très bon week-end en tout cas RTS 2 mi ngi and ak vraiment toute l'équipe di leen souhaiter une très bonne semaine de travail euh, mbokk yeeg xarit ñoo ngi leen di gërëm di fatali nak nañu ngi ci canal 5 bu TNT waaye tamit euh, application bi nek na lu am solo parce que fu way mëna a ne ci àddina bi mëna suivre en direct RTS 1 wala RTS 2 tout simplement mbokk yi ñoo ngi leen di sante di leen gërëm bu baax baax ñu ñëw ak yeen nak ci art et culture and ci ak suñu xarit Maymouna madame liggéey tey nag dafa ànd ñun ba Cap Skirring parce que nag semaine tourisme bi euh, dafa amoon foofu la dinañu xool lan la ñu may ak euh, techniciens yi mu àndaloon indil euh, mbokk yi bu ñu jógee ci loolu nag ñëw ci coup ay jakite nu ma ko waxee dëgg la fête yi mi ngi approché ay nag dem def benn shopping bu ndaw chez Jackie daal nee na daal chez Jackie lépp nga fa mbokk yi dinañ leen woon ba ci kanamee waaye nag ngir fête ay daf ñu indil ay tendance tendance yu nga xamante ne bi daal tendance make la xam naa ne danañu neex bu baax a baax mbokk yi bu ñu jógee ci loolu nag ñëw ci sport ànd nag ak sunu xarit yoon du Thierno Thierno Diallo mais Thierno Dramé ñu ngi nuyu Thierno Diallo bu baax a baax Thierno ma gis nag ne que vraiment mi ngi affaire wu am na daal lu muy lu muy jéem a lijjanti mbokk yi euh, ba ca kanamee incha allah euh, danañu ko gis bu baax a baax parce que nag euh, daal dafa mel ni daal lu nga xamante ne bi daal sunu ay xarit ñoo ñu ko baaxee loolu lépp mbokk yi danañ ci ñëw bu ci kanamee mu nekk daal lu melni dal daal na ci ñi nga xamante bi dañuy liggéey ci mbirum geej euh, ñu kontaan ci lool lool lool Thierno dina ñëw ak ñun aussi ci liste 12 joueurs euh, yu beach soccer euh, ñu jeexal émission bi ak vue sur la toile waaye nak mbokk yi saa su ne dañu am ay invité tay nak Matar Ba bi di manager bi and shoes inshallah dañu ñu expliquer loolu lee mooy lan mbokk yi ma dem régie dellu siwaat mbokk yeeg xarit yi dañuy am mbégte saa su ne nag di feggoo ak ñi nga xamante ne bi dañuy liggéey ak ñoom waaye tamit ak sunu ay invité El Hadj Thierno Dramé nag ah euh, euh, duñ koy faral di gis tam-tam mais c'est toujours un plaisir en tout cas euh, de le recevoir fii ci plateau bi Thierno sànq maa ngi lay gis ngay kurum kurum hmm. yi fa mel ni daal am na daal lu nga xamante ne bi daal nañ ko baaxee ñu kontaan ci dinañ ci ñëw nag te coppandawul émission waaw dinañ ci ñëw ngi nii après nañ expliquer lan la téléspectateur yi def naa ku gis sax dina la affaire fan la jógee ak ñan ñooñu ko jox très bien en tout cas Thierno euh, maa ngi lay nuyu c'est toujours un plaisir pour ñun di feggoo ak yow vraiment euh, ci sport dal machallah allah euh, yal na yàlla xeb dool yi daal yaa nga cee yëngatu di ci def tamit liggéey bu rafet ci RTS 1 RTS 2 tamit Thierno. dañuy jëm rek. Uh-huh. dañuy jëm rek xamal limay wax tout le temps ñun moom. Uh-huh. léeg-léeg nga romb nit mu féliciter le uh-huh. xam nga né li ngeen def. mais nañu xam ne ñun li ñuy def dafa ñu ko pour ñun ñom lañ koy def absolument donc ci la wéy matin midi soir ñëwaat tay ci tam tam wax walu sport comme d'habitude suñu championnat ak euh, championnat football basket ak beach soccer ndax lu am solo et puis nag Thierno nak da ngay ñëw ak ñun lég lég ci ay costume yu bax ak ay chemise yu baax macha sañ sé bi jaar na yoon soo ko laajoon Jérôme ma la si si armoire papa la ngati <laughs> kon nak ñogi nuyu papa ak mama ñi nga xamanteni bi ñoo ñi sétal Euh, ay damay am mbégte sa su di fego ak yow euh, bu waxé ay ñu né fashion mbokk yi gis ngeen nek vraiment <laughs> mèche bleu yi mèche orange yi mèche rouge yi mm-hmm. ay daf ñukoy indil ay nak tay euh, nga démon def sa shopping di mm-hmm. fàttali téléspectateurs yi nek numéro service commercial bu RTS 839 13 25 muy numéro bu nga xamante bi mën ngeen ñëw fi dal sponsoriser soit ay ay rubrique waye tamit émission tam tam carrément ñi nak vraiment ñu ñëwoon daal ne ah, ñun kat lañuy jaay bëgg loolu dinañ ko fësal ci émission tam-tam ay nga dem fa def sa sa shopping waaye tamit euh, ba ca kanamee da nga ñu indil ay mbirum tendance amul benn problème yaa xam <laughs> yaa xam di la nuyu uh-huh. di nuyu téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee uh-huh. comme c'est bientôt les fêtes de Pâques oui ah il faut ñu préparer suñu mbokk chrétiens yi ñu jàppal leen ci dem uh-huh. xool lan moo am actuellement ci marché bi. très très bien waaye namit make-up bi am na ci solo aussi. Mhm. parce que boo nee solo. Uh-huh. après maquillage moo ci des. absolument en tout cas ay ñu ngi lay gërëm di la sant mbokk yi saa su ne ñuy gërëm nag suñu ay invité euh, di euh, dalal jàmm euh, martar Ba bi nekk manager bi. and shoe c'est ça. oui Makhtar Ba bi dañu koy faral di dégg d'ailleurs am na sax suñu xarit bu nga xamante ne bi daan liggéey na fi macha allah liggéey bu rafet bu retraité. muy Ba bi bi ñëpp xam. Mhm. Ba bi Sidi Ba bi merci. Ah, fan fan fan la Ba bi bi jógee. waaw euh, tout d'abord maa leen di nuyu. Mhm. yéen ñëpp ku ci nekk ci tur ci santam. di nuyu ñi ñuy seetaan ci télé bi. waaw baa bi nag euh, naar la. Ah. naar naar naar mais naar bu xawal laal saraxule. d'accord ñu ngi euh, soqeekoo Bakel.

Bienvenue à l'inauguration du magasin Louis Jacqui, habillement hommes, femmes et enfants, qui dispose aussi d'un autre magasin de maison déco cadeaux loisirs. Louis Jackie Habillement vous propose euh, des vêtements de tout âge et toute génération. Les marques euh, Surulus, Nafnaf, Sinequanum, Morgane, Cameilleux et aussi qui fait pour les enfants aussi, de 3 ans à 16 ans. HM, Surulus, Sergent-Major. Aussi pour les hommes, vous en avez pour Bexley comme chaussures, Bexley comme chemise. Et vous en avez Surulus aussi pour des chaussures et des vêtements des chemises, des polos. Et aussi accessoires pour les, femmes, des chaussures. Vous avez des chaussures, des pochettes. Et comme accessoires, euh, bijoux, vous en avez Dolce Vita, des accessoires qui sortent de l'ordinaire, qui sont très modernes aussi. Vous avez tout ce qui est pour euh, décoration de, de, maison, décoration pour les cérémonies, anniversaire, mariage, communion, baptême et confirmation. Nous faisons aussi des commandes pour des communions, des baptêmes aussi, des commandes de dragées, des commandes de robes de communion, des costumes aussi pour les, garçons aussi, et aussi des, euh, des vêtements pour, pour, pour les baptiser. Louis jacques Habillement et Louis jacques Maison Déco Cadeau se situent à la zone B, villa numéro 28A. Et notre numéro de téléphone, c'est le 865 21 13. waaw ay en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. Mhm. Euh, chez lui Jackie. Hein, mhm. nekk fële sa zone B. alors ay gis nañ nag nekk vraiment foofu ku fa dem. macha allah mhm. lépp lu bëgg daal da nga ko fa trouver ne lañ homme femme enfant waaye tam dem ci décoration mu nekk adresse bu nga xamante ne bi daal. faaw ñu baamtu ko baamtuwaat ko parce que nag jar naa seeti. comme ni nga ko gisee ñu dem ci inauguration boutique bi. Mhm. deux boutiques la. Mhm. boutique boo xam ne lépp lu jëm ci décoration benn bi lépp lu jëm ci habillement. Mhm. marque yi bëri na. comme ay Camay Sénégal noonu. Euh, euh, sànq maa ngi dégg waaw maa ngi dégg kii euh, Thierno naan loolu loolu cher na de boobu la nag nit ki da xam lu baax. naka Bexley <laughs>

Ah bah oui, j'aime beaucoup, c'est très très joli, j'aime beaucoup la couleur. <laughs> Et, et, et aïe, euh, il serait bien ñu mhm. rappeler waat adresse am ak numéro de téléphone parce que moi, yi comme ni ñu ko waxee vraiment euh, euh, habillement jigéen góor ah lépp daal loo bëgg daal. jigéen. Mhm. góor mhm. très ndaw âge yëpp te aussi euh, comme nous nga gisee fête y'a ngi ñëw wax naa ko pak yaa ngi ñëw mais tamit ñi waaj a am communion ñiy def baptême il y a des fa sur commande mariage lepp <laughs> lepp lepp lepp mu exactement alors justement avant de mhm. revenir ci ay parce que genre boutique yi lu mu parce que par mhm. exemple ku mel bu dina mhm. jabaram fa mu taxaw la fa vous dites vous ne gis nga tay bu fekk fi chemise muy bi la fay fekk Ah. mooy taay bu nekk ak modèle unique. d'accord xam nga Sénégal am ñoo xam ne bëgguñu yu fu nuroo. Mhm. xam nga des nga sol dara lépp late. Mhm. boo fekkee benn taay muy M S L benn nga fa fekk jënd. loolu mooy ku yeboo que voilà mun nga boo fekk tombé <laughs> Uh-huh. mais bon comme comme tu as dit c'est uh-huh. mun shopping en en famille uh-huh. papa maman les enfants ils dem kou nga intéressé exactement jënd mom faire, rek bu bi <laughs> en tout cas on rappelle le numéro de téléphone Oui, mu sommes en face mairie zone B villa numéro 28 A numéro de téléphone 33 865 21 13 très très bien en tout cas ñi ngi bu baax a euh, vraiment boutique euh, Louis euh, nga xamantene bi ay adresse ba ku dal da nga fa lu nga bi nga ko ñu continuer yi ci coup de cœur ci toujours ak ay tendance make up sunu chrétien yi ngi leen di nuyu bu fête approché kon tendance make up bi ci plateau ya xam comme ni ñu ko gisee. Mhm. maanaam tey damay indi cinq tendances make-up. d'accord xam nga ci décembre bi tendance bi c'était fard à paupières muy briller. Mhm. léegi instant yi déjà base bi mooy teint. ok instant yi teint zéro défaut. d'accord ultra naturel la ñuy laaj. léegi nag pour def zéro euh, défaut ultra naturel comment faire. déjà di nga am peau bu baax. déjà teg ci en plus nga am fond de teint bu baax. oui moy jox effet naturel yi. moy mhm. dina cernes yi dina euh, point noir yi imperfection yëpp koy camoufler effet naturel carrément. Mhm. nga xamné du trop chargé. aussi baña def fond de teint bu beuri poudre bu beuri mhm. mais loolu base bi il faut nga am peau bu nickel. buñu ñu ci lolou nak dañuy dem ci tendance phare à paupières. moy bleu. le bleu bleu bleu xewaat na. Ah. actuellement xew te da lay permettre mu ubbi beuti ok jox regard bu nice c'est très joli xam bleu boobu boo ko ak bleu bi nga def ci ci mètre non nak bëggu mo bëggu mo ñu upp nak voilà mais regarde regarde ce que ce que ça donne effectivement mm-hmm. bu la nexé nga dégradé ko ak couleur bu la nexé nga def ko simple bu la nexé def bleu ciel bu la nexé def bleu foncé ça dépend ci yow mais boy defé genre farine gémmiñ gi day simple mëno charger beut changer gémmiñ effectivement bu ñu joggé ci lool nak make-up graphique muy eyeliner très très bien voilà eyeliner que nous utilisons d'ailleurs eyeliner couleur flashy façon couleur bu nek ah ci eyeliner yi. ba paré nak bi gën neex sama coup de cœur moy eyeliner bu wex blanc bu wex effectivement ah bon légui bu ñu gisee vidéo nga xol mhm. dame bi def démonstration maquillage woné ak nu ko défé c'est très joli. Bah, on va regarder et, et revenir sur le plateau. so waaw ay gis nañ nekk vraiment. gis nañ mu rafetee oui oui oui ça sort de l'ordinaire euh, Thierno. Hein tu n'aimes pas <laughs> ou tu aimes. waxal mm, euh, rek. j'aime pas trop en fait moi dama j'aime bien quand c'est simple quoi. maquillage nu ma simple gën sobre sobre. man moom moo euh, gën a xam parce que olof nee na ku puudar bu rafet boo ñaxee.

un peu de folie, ça ne tue pas. C'est juste histoire de sortir de l'ordinaire. Ah. de toutes les façons, gars, ils sont simples. En tout cas, eyeliner bouer, euh, moi, c'est la première fois que je vois ça. Mhm. Et je ne sais pas si j'oserais essayer, mais bon, on verra. Mm. euh, aïe, on va, on va continuer. <laughs> Il y a toujours une tendance. Hein. Toujours une tendance make-up, hein? mouille blush. am na des fois nit dañ naan def affaire muy ëpp trop. peut-être ki wan ñu ami photo mhm. ñu def ñu ëpp. léegi nag c'est gars yi moom lañ xewal tendance très prononcé blush. blush ah voilà teint rosé pêche couleur yooyu très très bien on peut regarder. Mhm. On un peu euh, ce que ça donne. Euh, deux deux ou trois photos vite fait. tu ah, vois ok oui d'accord. mu effet prononcé. oui et c'est joli flashy et tout. mais comme nous, ma le ko mhm. soit. Ce euh, blush que def mu prononcer, mhm. bët simple maquillage pour simple. bët simple mais mon nom est chargé, blush bi changé chargé, bi chargé très très bien alors choisis, bonne choisir que tu c'est ce qu'on voit maintenant Tiens, <laughs> regarde votre photo. <laughs> voilà et c'est simple. non mais c'est normal parce que boo démé ci cirque yi clown yi noonu la def <laughs> dañuy charger gémmiñ charger pommette charger bët. léegi yow léegi yow la nga bëgg wax ne kon ñun ay clown lañ. non attends je dis xam nga da nga né hein. baña charger chargé charger mhm. euh, chargé bët wala mhm. ainsi de suite. mais xanaa xamoo surcharge bi. mooy ouais, mais tu sais, euh, ce qu'il ne sait pas Thier c'est que là on parle de tendance. voilà c'est-à-dire que le le, oui. le monde évolue. Mhm. maintenant euh, il faudrait juste savoir que. Euh, dañu nous un plus parce que sur internet quoi mhm. qu'il arrive mhm. euh, des mails tu peux t'en sortir côté maquillage parce que mhm. on te montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en plus maintenant on a des maquilleuses au Sénégal yi nga elles nous aident à mieux nous maquiller On a une master class yi nga xamante bi soo fa inscrire ñu won exactement comment faire c'est que Diana instant yi dafa choqué <laughs> parce que yow kon un sourcil bi est collé kon looy l'église la non mais c'est vrai c'est vrai je veux dire c'est normal le monde évolue. parce que mhm. même mode mi ngi tout coiffure yi est changé mhm. avant li nga est ce que xam ñu en am de non ah, un <laughs> carrément comme euh, me trompe pas alors vraiment tendance. parce que euh, tendance make-up ah. je veux dire ça ça évolue. Mm-hmm. d'une façon extraordinaire. Nous gis que vraiment mm-hmm. mais voilà nous euh, appuyer sur les couleurs. Mm-hmm. surtout ce qui m'a marqué aujourd'hui c'est surtout eyeliner moi je ne sais pas si c'est adapté à nous ou pas. mais en tout cas. Euh, dal nga gis de vraiment euh, ci wa fànn mhm. parce que yow yaa ngi def ay ay ay ay choses mhm. waaye nag si fan yëpp gis nañ ne que vraiment mhm. gars yi ni ngi évoluer maintenant ça peut plaire ou ne pas plaire mais bon voilà moom comme comme ni ko grand bi waxee ah, man je suis beaucoup plus euh, naturel ou simple. mais quand même euh, quand on parle de la femme. Mhm. il faut jigéen dafa valoriser. Mhm. Mhm. et je pense que c'est ay indi. si si logique le donc euh, indi rafet na trop j'aimerais bien peut-être. que c'est mon future femme. <laughs> Ah. <laughs> c'est lancé c'est mon future femme. Bah, Inch'Allah <laughs> su fekkee que yéen ñaar moom nice mais bu fekkee da ngay dóor fii dóor fii dóor fii. mais am na ñoo xam ne noonu lañ ko bëggee ba mu fës. Hmm. duñu kontaan. Ah, loo ci ah, gis su see léegi mu nekk gis ko faa waaw c'est ça tamit. mu taa yow mi bu bëgg. exactement nee nañ les goûts et les couleurs. ça ne discute pas tout à fait alors ay on va on va peut-être terminer. waaw nag bu fi nii nag ah. boo xam naa dina gën a hmm. Oui, rouge à lèvres pailleté. Ah. voilà actuellement on a très xew très bien ben, on va regarder. mais aussi faut faire mm. attention pour ne pas nous boule <laughs> boule de disco. allez on y va on va regarder ça. <laughs> I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us voilà alors ay c'est vrai que c'est ba que ñi ngi xol ñi ngi bon sunu suñu xaritu sunu càmmin ñi ngi xol mais bon je veux dire comme tu dis on parle de tendance maintenant mm. tendance je pense que dafa am peut-être tranche d'âge beaucoup ko moom mm-hmm. tranche d'âge bu nga ne bi suñ ko peut-être de choquer y y aussi le milieu parce que il faut savoir aussi que le mhm. maquillage mais mais ben, c'est pas pour la journée par mhm. exemple Ce n'est pas pour aller au boulot par mhm. exemple euh, c'est peut-être pour euh, moi en tout cas je pense que j'en arrive pour boire de nuit là plutôt ah tu tu Moi je pense. Boire de nuit aussi ça fait remarquer Il y en a qui aiment ça ça fait remarquer après le jour au travail ngay rencontres... non pas au travail quand même justement d'où la pertinence de ce qu'elle dit Mais Il faut que affaire du pour nga koy fait mhm. parce que peut-être booy dem yenn cérémonie. et encore et encore il faut que ça soit hyper grandiose voilà mais je pense boîte de nuit déjà j'ai de lumière mouille muy plus. est-ce que nous moo leen si neex ça? effectivement <laughs> effet muy scintiller te tendance yi ci fashion week qu'il lay gagné uh-huh. comme a nga gis nii ci fashion week qui am ay États-Unis si lay gagné c'est la gars yi di inspiré wu. te toujours même bu inspirer inspiré wu lay xamal carrément faut pas trop exagérer. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee ay yenn événement la yenn cérémonie à boîte de nuit. C'est juste ça, histoire de se démarquer ku <laughs> fa voir. waaw <laughs> jërëjëf bien. waaw <laughs> mais nañ def attention ba numéro bu dafa set. waaw macha allah ah. bon comme comme ni nga wax rek cest dire que comme comme li ma wax sànq rek. Mhm. peut-être euh, lépp day génne rek taru jigen mhm. mais quand même il faut toujours ñu baña a ni on est au Sénégal tamit. ça peut heurter des fois. mais quand même je pense que lépp plus valoriser. mais gars yi côté boobu nag ñoo ci évoluer. Ah. parce que gis nga léegi dangay dox ci mbedd bi ci xew yi gars ñi def ay rouge à lèvres yu ñi def yu rouge ñi def bu jaune il euh, dit, les goûts euh, et les couleurs ne se mm-hmm. discutent pas. Euh, comme il dit, il y a des filles ci Sénégal mais mm-hmm. justement ci Sénégal aïe. Euh, am vraiment euh, tourisme mi ngi développé euh, d'une certaine façon da nga xamantene ne ñooñu tamit amna lu bëri lu nga xamantene bi ñong koy indalé justement ñu dem ci art et culture mbokki yi ci ak Maymouna Sy ci rubrique bi nag Maymouna dafa ñëw ak ñun ci benn élément bu nga xamantene bi dafa jëm ci semaine du tourisme feulé ci Cap Skirring xam naa ne tamit mode bi dal dina dina varier parce que ñëpp fay daje mbokki ñu dem xol lan lañu maymuna indil ci élément bi delu ci wat ci Jembereng ay xumbati lañ daal di dalale jëwriñ joor wàllum tourisme ak délégation bi ci biir cérémonie bi nag daan nañu rafetlu bu baax li nga xam mooy amelu ñaareelu édition yu semaine tourisme interne fii ci biir Casamance. fii ci commune de Jembereng sunu yaakaar moom mooy tourisme amul benn économie boo xamante ne bii yaakaarul ci tourisme nu bëggoon itam boo delluwee dakaar nga jébbal monsieur le président de la république sunu mbégte. parce que dañu sommes ci yi nga xamanteni mom la jël comme décision fi ci Casamance. dañuy def semaine du tourisme interne pour ñaax Sénégalais Nous ñu ñëw visiter Sénégal visiter Casamance visiter Cap Skirring visiter Diembering lool da fay lo ne dafa am solo ci volonté bobu nga xam dañ ko am pour bayyi wax saison touristique ndax euh, souvent dañ mën ñëwal ñu dem lancer saison touristique. ma ne leen man du ma lancer tourisme saison touristique ndax dama bëgg tourisme nekk at bi yëpp kon nag li nga xam ne dañ ko def tey dafay loo xam ne dafa am solo ci politique ba nga xam ne moom la ñuy mettre en œuvre au Sénégal. semaine tourisme interne bi ci Cap Skirring nag daan nañ koy gën a seetlu ak teewaay yi ñi nga xam mooy délégation ministère marocain bu tourisme ñëw nag xool si li nga xam ne ñuy duppee merveille bu station balnéaire bu Cap Skirring bi. ci biir cérémonie lancement bi nag daan nañ ciy xool daal di waxaat jaar ay mesures yoo xam sax daan nañ koy jël ngir gën a suqali li nga xam ne mooy secteur tourisme bi. su ñu bëggee gën a développer tourisme bi foog nit ñi mën a déplacer wu lu gën a gaaw loolu moo tax aéroport wu Cap Skirring boobu ba tey ñu ngi ciy def ay réflexion bu kérosène bi nga xam ne mooy joxe essence ci avion bi nga xam ne ñu ngi koy construire incha allah juillet dina pare aéroport wu Ziguinchor tamit ñu ngi koy réhabiliter lu toll ci 25 milliards ne nañ ko ci def. dans le cadre de réhabilitation aux aérodromes régionaux yi loolu yëpp may nit ñi qui en ci zone bi ci anam yu anam yu yomb que tax ma fait ne muy fa tourisme tollu ci Sénégal tollu ko fi ci zone bu Casamance Bala ñaari at ñetti at dinañ fa ko ndax objectif bi nga xam ne moom la ñu am ci gouvernement bi mooy ne bu 2023 yee fekk juróomi at ñu touristes yi ñëw Sénégal tollu ci 3 millions. nekk nii nag Cap Skirring ngir dalal semaine tourisme internet bi nag dina tax ñi nga xam ni ciy yëngu ñu gën a xool nag naka lañ koy gën a suqalee ba jaay bu baax li nga xam ne mooy destination touristique bu Sénégal. i fàttali nag nekk euh, Maymuna demone na fele ci RTS 1 muy maison mère jëli nak li nga xamanteni ne bi mooy sujet euh, ban Abdoulaziz ban bi nga xamanteni bi moom moo nekk fële euh, ca RTS Ziguinchor Thierno ñu gis nak nek vraiment ñi ngi suqali wa tourisme parce que nak nekkoon na patch bu am solo ci économie sunum rew à un moment donné gisoon nañ ne affaire yi xawoon na loow tuuti mhm. mais nak vraiment mhm. façon yi vraiment ñi ngi koy def te mi ngi maa ci reportage bi ñu ne foog ñu faciliter accès bi mhm. ah, pour mu gën gaaw parce que vraiment touristes yi leg leg temps bi ñu fi passé Sénégal du bari lool. xam nga mën dem ay Cap Serigne très rapidement ñëwaat loolu tam da ci am solo. waaw dafa am <coughs> ay jégul mhm. dafa am solo. Mhm. parce que booy xool euh, touristes yi ñu bari touriste tourisme bi ñuy def mooy dem ci plage yi yenn hôtel yi xam nga te loolu mënoo ko am Dakar. Mhm. donc il faut nga dem ci région yi ay Saly yi ay Cap Skirring Cap Skirring boo xool site bu am solo la. absolument parce que y a de de grands hôtels là-bas. am na espace am na ñu wax ni que plage yu Sénégal fa mhm. donc effectivement nit ñi tubaab bi dañuy sop di fa dem mhm. donc tay bu ñu des moyen de euh, transport mhm. parce que faut vraiment avoir amul aéroport international donc il faut nga ñëw à Dakar soit nga jël soit mba nga jël avion bu ndaw mu donc c'est important que nous, effectivement accès bi yomb mais leneen ni euh, waruñu yam rek ci xool ciblé le monde. Mhm. parce que tourisme local aussi de femmes solo. Ah, Moi sénégalais yi. autochtones yi. Mhm. xam nga ñoom tam ñu mën profiter. Mhm. ci yenn euh, yi. pour ñoom découvrir affaire parce que il euh, y a de très belles choses à découvrir yoo Sénégalais ne sénégalais seen bopp xamuñu ko. et ça il faut que ñu démettre ay politique yo d'abord.

na solo ci mbirum tourisme parce que tamit mhm. yéen tamit yaakaar naa ne la ngeen di liggéey da mhm. ngeen koy fësal tamit pour que non seulement sénégalais diko jëfëndiko ko mhm. tamit étranger côté artisanal surtout surtout parce que sax bo xolé amna lu ñu wax tourisme artisanal ndax euh, li nga xamante artisan artisanal ñu koy def fi ci Sénégal touristes yi des fois bu ñu ñëwé dañ koy bëgg di jënd wala dañ koy bëgg di gis donc tourisme dafa nekk patch euh, bu am solo ci si économie dëkk ndax limi limi limi créer dafa bari donc comme nous ni ko grand Dior il faut que nous soyons politique ñun nous, suñuy autorité définir politique pour faciliter un petit peu touristes yi bu ñu ñëwee mhm. mën a gis le xew ci dëkk bi mhm. apprécier li artisans yi surtout ñu ngi koy def mhm. ndax boo dee xool euh, ñi ëpp lu ñuy ci produits artisanaux yi touristes la donc il faut que nous soyons autorité définir politique yoo xamante day faciliter un petit peu touristes pour ñu mën di vraiment apprécier li nga xam moo xew biir biir Sénégal. très très bien en tant mhm. que artisan justement euh, nga ñëw ak ñun nag ci li nga xamante ne bi moom ngay liggéey. Euh, jëmale ko sànq maa ngi koy wax. Euh, ci mhm. mbirum dàll muy dàllu ngaay yi nga mhm. xamante bi ñu bëri Sénégal xam nañ ko xam nañ dëgëraayam xam nañ vraiment liggéey bi nga xamante ne bi yeneen ko ci def. waaw on je précise que du mu artisan nag. parce que mais quand même dëkk artisan la dëkk muy ngaay mexe. ndax euh, yàlla dafa def euh, ma ma juddu ci Ngaye mu nekk pôle artisanal du Sénégal. Mhm. Euh, ma yarook ak ay artisans samay mhm. xarit. waaw kon nag wax dëgg yàlla sëñ bi yaa ngi dëkk foo xamante ne bi artisan yi. yaa <laughs> mën a nekk lu dul artisan. waaye sëñ bi la. <laughs> voilà que boo bon man dama après dama def ay études. ci laa jàng ñëw ba université ba sama master. léegi nag ma ne man du fi nekk di di wër liggéey. Mhm. carrément parce que. amna lo loo xam te war nañ ko wara mëna mën valoriser. Mm-hmm. muy artisanat bu ngaay mexé mm-hmm. donc ma daal ci bind projet daal ci commencé. Mm-hmm. ba yalla def tay ñu egg ci fi fiñ si egg nii. donc loolu tamit. donc manat manat manager nga daal ci. waaw en fait bon euh FASEG la génne. muy économie ak gestion dama jang xamna naa ñuy gérer mbir. manam muy manager. donc ma ma créé suñu suñu sunu euh, benn label bu tuddu Be Shoes. bo xam te entreprise la buy défar ay dal yo xam bi senegal gi lañ koy defaree. donc ci lolu nak mhm. la un peu parce que bo dee. xol dal dal yaa ngi nii de parce que bëggon na dal yi ñëw ci plateau bi way nak xam nga suñu caméraman yi dañoo <laughs> xaral donc won nañ ñu. voilà yi nga xamanteni bi dal vraiment yéen ci yëngu. voilà parce que mhm. bo dee xol xam nga ngaay mexe peut être nit ñi xa ñu ngi koy dégg ñu ngi dégg daalu ngaay mais musuñu xam exactement li fa am yëpp. Mhm. donc bo dee xol artisanat li mu mën a créer ci emploi ci Sénégal. ak menuiserie boo dee xool beneen secteur mën na ko créer. damay joxe exemple toujours Maroc. C'est un PIB. Mhm. produit intérieur brut 19 l'artisanat l'artisanat très bien ci seen wàllum mhm. donc ñun Sénégal dañu euh, ñu gis ne artisanat dañ ko war valoriser mais ça commence par ñun jeune ñi nga xam ñoo jang mhm. peut-être artisan yi mën nañ am nañ savoir faire bi mën nañu défar mhm. mais xamuñu yan moy la euh, jaar ak yoy non mhm. donc yalla def ñu créer ko depuis 2014 bon un petit peu ci affaire entrepreneuriat ndax tamit euh, xàll sa yoonu bop la xawon na metti ñu commence ak 25000 francs je me rappelle donc <laughs> ah. waaw <laughs> nit ñi xamoon ñi xawon nañ ci gëm ñen ñi gëmoon nañ ko ñen ñi gëmuñu ko won mais quand même ak suñu dynamisme ak li nga xamante peut-être bëgg nañ ko mhm. développer suñu suñu suñu gox mhm. yàlla def ñu ñu ñuy dox di dox ba daaw ñu ubbi suñu premier boutique mhm. bu nekk euh, fii ci Liberté 6 extension euh, léegi ma bëgg xam vraiment collaboration bi nga xamante ne bi parce que comme tu viens de le dire euh, entrepreneur nga yaa ngi jàppale artisans donc euh, euh, collaboration bi nga xamante ne bi yang koy am ak euh, ñi nga xamante ne bi ñom ñoo mm. nek vraiment ci liggéey bi waaw parce que bo dee xol xam nga artisans li mo wax sank am nañu savoir faire bi mm-hmm. mais peut-être yoon yi ñuy jaar xamuñu ko mm-hmm. donc ñun ñi nga xamante peut-être jang nañ mm-hmm. xam nañ un tout petit peu comment ça se passe ci milieu ci milieu entreprise ak yoy. donc lu ñu wax li américain di wax to synergize force manam ñu def la synergie des forces donc man ak samay xarit ñi nga xamante ay artisan lañ mënu leen pourquoi pas ñun bu ñu créer suñu structure yen ngeen di defar ay dal yoo mm-hmm. xamante ni ñun ñoo ko def ñoo def design bi ñooy def design bi ñooy def lépp def design bi ñun en fait be and choose quoi parce que on a une administration quand même d'accord euh, man maa nekk ci boobu bi mm-hmm. y'a chargé communication mm-hmm. ñaata ngeen on est on est quatre pour l'instant si si ah, artisan, yi artisan ils sont cinq okay. pour l'instant parce que une téléproduction bi sont cinq personnes yoo xamante ni gars yi la ñu dëgg. donc nous on, on fait le designing en interne xool def l'étude technique pour l'instant commence nañ ci mais mhm. ngaay ci mhm. vannerie mi ngi fa mi fa. Mhm. peut être. Euh, poterie aussi. poterie poterie exactement. et peut être peut être ci kanam. pourquoi pas ñu commencer ñu valoriser parce que dafa am importance. artisanat dafa lu lu mën soxali am réew. très bien euh, Thierno euh, lu ko waxee artisanat nek na lu mën soxali réew way sank ma koy toon ko wax artisan mais dafa melni tamit buñu buñ ci jappé pour structurer ko. Mhm. defe naa ne euh, mbir mi dana gëna a jëm kanam parce que mhm. comme nim ko waxee évidemment il faut qu'il travaille avec les artisans. Mhm. mais yaakaar né aussi staff bi nga xamanteni moko ëmb xol stratégie marketing xol exactement nu ñu koy liggéey amna solo waaw te euh, parce que li boo seetloo li mu waxee manqué déglu. Mhm. parce que c'est quelque chose de très important. xam nga savoir faire mi fi. Mhm. parce que daalu ngaay ku ko jënd mun nga ko sol pendant des années. du yàqu euh, te dañuy gis ni souvent euh, ñiy defar daal yi du ñu am seen marque. Mhm. day dañuy toog seen atelier di ñëw exposé ci boutique. alors que dafa baax parce que sànq en obsericon man koy wax. li ngeen di def ñaari mbir moo am solo. benn mooy qualité bi. ñaar mooy accessibilité. accessibilité mooy qui bëgg dalu ngay mu xam fan la ko amee mu mu bañ a soxla di dem ban ngaay pour am wa parce que ñu bëri en fait euh, li ñuy xalaat moy c'est vrai. bëgg naa ko mais bon il faut aller jusqu'à il faut aller jusqu'à ngaay donc bu ñëwee tey ñu délocaliser am boutique on va pas citer. parce que mm-hmm. euh, non ce serait de la pub. mais déjà c'est c'est déjà pas mal maintenant mm-hmm. après li am solo mooy ñu def parce que aussi comme il l'a dit dañ ci liggéey dañ ci daan sen doole. Mm-hmm. mais ñu gëna ambitieux d'ailleurs dina wax peut-être ci foire bi ñu bi ñu bëgg organiser. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que li ñu war a def mooy fédérer les forces dem ba mu am un label. absolument Dalu ngaay c'est-à-dire quand je dis label mu dépasser les frontières du Sénégal. tout mun na am 20 marques. Mm-hmm. mais parce que booy xool xam nga boo jëndee dàll di nga gis par exemple ñu des ci benn marque Timberland. nga dëpp nga gis ñu bind Gino Wine Laser. loolu label la. ça veut dire que c'est vrai nii affaire yooyu. donc ñoom bu ñu demee ba tey ku jënd daal boo xoolee gis marque sangam ah Daalu Ngaay label tampon bi. ISO mm-hmm. nang nangam. exactement exactement xam nga Thierno li nga wax dafa am solo. gis nga mm-hmm. dal bi nga xamante bi mu ngi koy won c'est vrai que euh, on envoie genre style bi à l'étranger. Mm-hmm. mais je voudrais aussi savoir yene euh, li ngeen koy liggéeyee. Euh, fan ngeen koy jëlee. waaw bo dé xol matière première bi li ci ëpp dañ koy importer. ok maanaam bitim réew lay jóge ndax. dama maa ngi fàttaliku bi may nek xalé ci Ngaay sama koñ. dama ngi chaque altine ngaay moom la ñuy wax marché luuma bi. Mhm. Euh, dañuy am na tubaab yu ñëw ak ñu seen i conteneur dañuy jël der yi. dañ koy mhm. jël chargé ko ci conteneur yi yóbbu mhm. ko. bu ñu ko yóbbu dañ koy transformé ñëwaat jaayaat ñu ko donc. malheureusement lolu ben frein la si si artisanat wu bu ngaay en particulier mais artisanat au Sénégal en général mhm. donc matière première bi dañ koy jëlé ay Italie yi ak yooyu ci marché bi rek ñu leen koy jëndee d'accord légui nak comme mhm. matière première bi da ngeen koy jëlé ay Italie ak yooyu est-ce que tamit euh, du du du du xaw euh, cher non non genre parce que xam bo dee xol amna na ñoo xam ñu koy jaay dëkk bi d'abord mhm. peut-être ñun amaguñu moyens yi dem diko wut ay conteneur ak yooyu voilà mais ñun dañuy ñëw ci marché bi apprécier xool qualité bi D'accord xool muy dain muy muy muy cuir ñu xol ko après ñu mhm. jënd ko buñ ko mhm. jëndee ñun nak c'est là que suñu. c'est accessible. waaw c'est accessible li am solo lool tamit bokk na ci combat yi ngeen war a mëne parce que mhm. quand même matière première amna fi. xam nga Sénégal dañuy dañuy dañuy jaay xar tabaski da ngay gis ñu dajale. Euh, jël der bi di ko kii fexe ba yéen mm-hmm. à votre niveau ngeen installé ay unité de transformation. boo boobu am na ngaay. Mm-hmm. boo dee xool yàgg na mooy méthode traditionnelle yi jigéen ñi di am. Mm-hmm. mooy jël der bi xooj ko si ak neb neb bi. ak justement sa sa mbokku naar yi. waaw sama mbokku naar yi. noonu lañ daan def mais boo dee xool loolu production bi du bari par rapport à la demande. tay dal yi ñuy defar fépp ci Sénégal bo xolé Korité ak Tabaski. Mhm. Euh, boo dee demande bi moom moy ëpp offre très très bien léegi yeen mhm. fan ngeen ci tollu parce que euh, yaa ngi expliquer sen structure euh, par exemple disons en un mois mun ngeen defar ñaata dal waaw loolu ça dépend parce que ñun on travaille ci sur commande. ah c'est juste sur commande. waaw on travaille li ci en fait. parce que bon à chaque deux mois on lancer une collection. Mhm. donc mais quand même li ci par commande la mais nañ di def ba on peut faire dix paires dans la semaine dix paires dans la semaine. di di di ñëwaat ci li Thierno wax ci côté label. parce que uh-huh. plus ngeen am sen marque bop c'est am seen mm-hmm. kiwu bopp danañ permettre ngeen gëna mëna exporter à l'extérieur te gis nañ d'habitude maliens yi ivoiriens yi dañuy ñëw fi Dakar ba ci Burkina yi di jënd fi ay dal dem di yóbbu di jaayaat. surtout est-ce que yéen yéen a ngi yóbbu. waaw ñu ngi yóbbu Yalla def na euh sank pour répondre peut-être ci sa question. Euh, alhamdulilah peut-être gouvernement bi lancé nañu benn projet. Mm -hmm. de usine de transformation de peau. Mm-hmm. bu mm -hmm. Touba. Mm -hmm. je pense que opérationnel na sax mais quand même nous commencé nañ parce que boo dee on a commencé petit d'abord pour nit wan nit ni dalu ngaay li ngeen di dem di jënd ci biti mmh. Mmh. Mmh. c'était important parce que c'est il fallait que nous marquions son empreinte donc bu yalla défé ñu def ko bon légui ñep xam nañu méthode de vente yi dafa dafa dafa dafa dafa diversifier absolument y a les réseaux sociaux ci lay gëna a uh-huh. Uh-huh. donc ñu am suñu page ak yépp mm-hmm. donc ba yalla def sax euh, en 2015 lañ commencé génne suñu dal très très bien en en France. yóbbu nañ ay trois fois ay colis de dix paires. yobbu nañ aussi am nañ commande États-Unis à Denver. très très bien euh, Argentine aussi on l'a on l'a eu dernièrement la semaine passée on a eu une commande de Burkina Burkina Faso. donc on va envoyé envoyer. donc commencé un tout petit peu de gagner. donc mais quand même le professionnalisme la très très bien côté côté excuse-moi deux mhm. secondes ay. Mhm. Euh, ñi nga des bi ñooy artisans yi. Euh, seen volet formation fan ngeen ci parce que je pense qu'il faut pas aussi s'arrêter juste ñii mun nañ def li mais mhm. aussi je pense que volet formation. est voilà parce que vous dee peut-être nous, nous mettre sur pied une structure. pour valoriser euh, dans le made in Sénégal donc foofu lañu commencé d'abord ñi nga xamanteni jël nañ leen ñun liggéey. Mhm. dañ leen di faral di defal ay ay ay ay formation yo xamanteni euh ñi nga xamanteni ni ñooy njëkk ci njëkk ci art liggéey artisanal ñom mhm. ñoom ñooy ñoo leen faral di former bo dee xol bo demee ngaay pratiquement ñi fa ñi fa ëpp ñi fa ñi ëpp ñu former moy mhm. euh, wa cawaan cawaan lañ leen di wax ak wa maabo

ñoom ñu ñëw jox leen ay formation en mm. technique de dëkk yoy pour gëna yok yokk seen expertise ak yoy dal mm. mais cinq yoy c'est des personnes âgées wala ay jeunes lañ non ay jeunes lañ ay jeunes lañ parce que ci sunu ci sunu bon légui xam nañ peut-être des fois euh, personnes âgées dañu xawa ancrer un peu mm-hmm. ci sen méthode traditionnelle parce qu'il faut ngeen il faut ngeen affaire comment dire am euh, finition il faut que ñu affiner ko mm-hmm. que franchement que pour ñeen ñi mën ko utiliser vous êtes des salariés non pour l'instant nek ñu salarié parce que quand même comme ni nga wax rek euh, c'est une structure qui xam ça fait trois ans juste trois ans mhm. donc pour l'instant on est on travaille sous contrat avec nous. Mhm. Mhm. donc suivant un termes bien précis mais là là là on vraiment commencé à avoir une ampleur Mhm. et on prévoit d'ici peu de temps. Mhm. si il une unité de production de 10 personnes. des mhm. salariés. avoir leur propre atelier et tout ça. voilà je pense que Thierno normal d'avoir wax sànq mbirum salarié parce que je pense que comme nous sommes structurés, je pense que s'il y a une bonne gestion nous nañu même si ce n'est pas énorme avoir quelque chose de base euh, pour que vraiment aussi bien nous que que artisans ah oui parce que gis nga nit mun nga démarrer fu ndaw xam nga nee 25000 je suis mhm. sûr que dans 10 ans bo ñëwee bo la waxé ay revenus ay revenus xam nga di nga <laughs> alors justement il faut y voir ah. absolument on va parler de la foi oui donc euh, euh, puisque bi ñu teg bien chose euh, yalla def na ni am nañu on commence un petit peu à avoir de la notoriété ñi mhm. ñang ñi ñuy commencé xam donc ñun ay doomu ngaay lañ ñu né pourquoi pas ñu valoriser ngaay rek ndax ngaay du dal kese mais daal ngaay am na am na ay pañe li ñuy wax vannerie bi. Mhm. am na ay yére ay robb yu rafet yu fay am. waaw c'est vrai mooy ñaw ñaw yi. Ah, am na ay ay poterie bi ak yëpp. Mhm. donc ñu ne ci loolu il faut ñu valoriser ngaay donc. ci la ñu def benn projet bu ñu tuddee ngaay mexe à Dakar. Mhm. Nous avons initier prévoir le 14 et le 15 avril Inch'Allah, allah. Mhm. ci Bourguiba mhm. donc 50 artisans ñu jógee Ngaye mexé très bien les plus yi yi. Mhm. vannerie yi. luy produit artisanaux bu dina pour deux jours très très bien mhm. alors euh, en tout cas xam naa ne suñu xarit may mun a si madame Guèye dana fa doxantu inshallah parce que mi ngi yëngu ci label 221 en tout cas c'était important mbokk yi euh, mhm. nous waxtaane ak euh, Makhtar Ba bi comme nous mu ko manager la waye mi ngi manager ay ñi nga xamante may artisan lañ donc mo nga ci bir donc di jappalé mom itam di jappalé bopam pour que vraiment mhm. ay yeneen i jeunes sénégalais dal gis ci sen bop ba pare vraiment suqali comme nous mu ko waxee liggéey mi nga xamante ne bi waa ngaay ñong koy def muy nekk liguey bu rafet en tout cas ñi ngi les gërëm di la sante. c'était mhm. très intéressant il euh, le euh, souhaite souhaiter vraiment bonne continuation et surtout mhm. euh, succès ci li nga xamante ne bi mooy foire bi mhm. am ca Bourguiba incha allah waaw donc on dit, di ci parce que nous, dañu sommes ay défenseurs consommer local. nous dañu gëm consommer local. Mm-hmm. man je commence par man. je ne mm-hmm. porte que ma marque. Mm-hmm. ñun ñep ñu qui ci bien lu ngaay bon sauf jean bi bi. c'est mais quand même. consommer local vaut vaut mieux que de ne pas consommer exactement en tout cas nous aussi nous essayons de consommer sénégalais la belle 221. ça gis Mariama lañ koy en tout cas nous ngi pousse non seulement mhm. dans les mais ci les bi ak yëpp cerno nous mhm. euh, ngi daal pour consommer euh, sénégalais et c'est important oui c'est important mhm. daal di consommer local hein. ah bon non mais t'as vu ça gis nga gis nga même Thierno daal lii nee na que c'est consommé. Ah, euh, bo gisee boo ko solee si bi dañuy foog ni c'est importé mais. alors que kii la ah mais mais Thierno foog foog foog ñu wane daal yi parce que nak hmm. daal yi ñu né consommé sénégalais la mais waaw mais voilà mais c'est magnifique non c'est vrai il faut montrer. c'est très ah, joli franchement day wane ne rek encore une fois. ni ah expertise yu artisan la qualité est là man je me dis plutôt ngay dem di jënd ay dalu soixante ni bo bo ki boo kii ils te font ça à vingt cinq ay sénégalais. yu alors que euh, et c'est de la qualité parce que daal léegi mu def 2 ans ça taal. non mais justement là la donne beaucoup wax c'est-à-dire que

waaw Thierno ñu ñëw nak ci résultat championnat football waye tamit ak euh, basket bi euh, Thierno. waaw dañuy euh, xol sujet bi nga xamanteni mom moom la Seydina Aliou Djigo demoon defi mu nek ay match bi diggan doxon diggante ñaari tali ak Linguère match bo xamanteni mi ngi dox ci li nga xamni moy 17e journée championnat national ñaari tali nak mo dan 1-0 euh, ci bii bi ñuy gis euh, tax ba ñaari tali replacé wu boo xool ci classement bi parce que équipe bi mu doon taseel euh, Linguère ñoom tamit ñu ngi ci ventre mou championnat mais dafa soxla gagné. pour rapprocher wu leader bi. lii euh, basket la ñu à enchaîner Ami Collé basket la mu soxaloon euh, li nga ni euh, coupe du Sénégal diggante Saint-Louis basket club ak Bob, Saint-Louis basket club nag ñoo daan ñoom ñoo sol maillot yu rouge ay jigéen la ñoom ñoo daan nga écart points d'écart. ah quasiment waaye ah, parce que Saint-Louis basket club bokk na ci équipe yi nga xam ne ñoo gën a taxaw Sénégal mm-hmm. ci góor ak ci jigéen lii nag góor yi la ñu def match playoff la woon diggante AS Douane ak Saint-Louis basket club toujours mais bi yoon cette fois ci AS Douane moo gagné. d'accord score bi 62 euh, 59 mu doon ay match yoo xamante ne ñu ngi ko joué ci week bi. Euh, léegi pour juste pour terminer ci li nga xamné moy championnat bi ñu joxé quelques résultats diggante jaraaf ak ñambour jaraaf mo do ñambour ñaari bal ci mhm. euh, benen match bi diggante Stade de Mbour ak Casa Sport Stade de Mbour tamit mo daan Casa Sport mu nek ben surprise mais surprise bu ndaw rek. Mhm. ñaari bal ci ben li nga xam classement génération foot di promu nous Ligue Ligue ba premier euh, victoire gagné mu ñëwaat euh, troisième Ñaari Tali mooy quatrième Casa Sport ci classement bi nag US euh, bon euh, mais US Gorée tey dina lay lay football ak ki nga xamné moy jambar jàmbaar na. bu c'est pas encore perdu. voilà c'est pas encore perdu mais c'est mal embarqué quand même. très très bien mm. alors Thierno ñu ñew nak aussi nak euh, ci li nga xamante mom moy mooy beach soccer ana lan nga ñu ci indil tay alors beach soccer xam nga ñom dañu wax dem coupe du monde bi xew Bahamas mi ngi tambali le 27 avril ba le 7 mai. Mhm. entraîneur bi nag Ngara Sylla génnee na liste toujours yi nga xam ñom la sélectionné. Euh, gardien yi euh, Alseni Ndiaye la ak Abdou Karim Somb. Mhm. défenseur, yi Mamadou Sila vieux Ibra Sayer Tchoun, Pape Demba Ndour ak ki nga Pape Mamadou Ndoye ñoy défenseurs yi milieu terrain bi Babacar Fall Ahmad François Diouf ak euh, Mamour Diagne ki nga xam ne ñi nga xam ne na ñooy attaquant yi Lansana Diassi la Amidou Barry Ibrahima Baldé mu doon championnat boo xam ne mun nañ ko si nañ ko seetaan incha allah ci antenne RTS 1 parce que RTS dafa jënd toutes les compétitions FIFA te kii da ci bokk coupe du monde bi soccer bi mm-hmm. ak bu ñu jugee ci loolu tamit ñu dem ci li nga xam ne mooy CAN U20 bi euh, xale yi nga xam ne ñoo demoon finale si coupe d'Afrique bi mm-hmm. ñoom tamit war a bokk ci CAN U20 bi yooyu yëpp ci

ñu mën parce que vraiment nit ki bu la défalé koy gërëm sante ibil la ibil la ibil la buntu bu baax euh, euh da nga ko voilà kon nga euh, euh, émission waaw le waaw ah. muy patrouilleur bu baax mbokk remercier vraiment wa marine nationale comme commandant Sougou Fara wallay <laughs> bi recevoir xam nga ak équipe bi yëpp. Mhm. Euh, commandant Wade. waaw euh, ak ki nga xam ne mooy capitaine Diallo. waaw jàpp si bu baax. Mhm. commandant Tine tamit. wallaay ñëpp jàpp si. xam nga euh, kontaan ci liggéey bi parce que lii man dañ ñu ko décorer. Mhm. ah la boo xamante ne seen ay gan lañ koy jox. boo gisee armée yi dañoo am ay. ay ay ay ay cadeau yoo xam ne saa yu ñu amee gan dañ leen koy jox. ñoom am na yoo xamante diggante armée sel seen biir la. mooy yi nga xam ne day am fond bi nekk en bois. Mm-hmm. bois massif la ñu jël ko taaye ko def ci médaillon mais bii pour mm-hmm. gan yu spécial yi te waa RTS 2. ay gan yu spécial la ñu woon ndax vraiment. <laughs> dañu xool 4 avril ñu ne dañuy wax environnement ñu ne waaw mais du ñu mm-hmm. yem rek ci environnement dañuy dem ci armée yi xool ban armée la boo xam moo fi nekk te nit ñi xam ñu lan mooy liggéeyam ñu ne marine nationale dëgg la ñu dem fa ñu il rek ci dalal ñu. ndax mhm. dañu jël yeb ñu ci bateau mhm. ay tenue ba recevoir suñu yeneen gan. Mhm. c'est important parce que. Euh, gendarmerie euh, donc militaire ngi donc toutes les armées recevoir les ci bi nga patrouilleur

mission yi marine nationale am. Mhm. marine nationale day couvrir le toll ak million 800 000 mille kilomètres carrés maanaam gi. Mhm. Guinée Bissau mhm. ba ay Mauritanie ci kaw. responsabilité Sénégal dañ ko denk ndax lan sen xarañ. ak sen sen matukaay yi ñi jël ak matukaay yi ñi am. waaw ak ak jumtukaay yi ñu yoré exactement motax ba lool communauté internationale denk ko Sénégal né li lepp ci geej gi yeen lañ ko denk lu fi xew yeen mhm. yeen yéen saytu mhm. yeen ñu jox information yi bu ñu waree envoyé mission mhm. yeen a def mo waral euh ñu jox ñu li rek ñu jox ñu li euh, ñu nangu ko ñu nangu ko avec beaucoup de plaisir euh, di fatali nak nek defena né c'était juste une première avec la marine nationale amna na yu am solo yu nga xamanteni bi ñong koy def inshallah allah RTS2 dana ci dana ci and ak ñom en tout cas ñi ngi gëreum ñep amiral bi buñ ko gërëmee comme ni ñu ko waxé kérok gëreum mm. nañ marine yeup kontaan nañ ci ñep di leen sant sant di la di leen gërëm au nom de toutes les équipes de la RTS rawatina nak wa RTS 2 ñi nga xamantene bi ñoom ñoo demoon defi liggéey bobu ma àndoon ci nak vraiment ak euh, parce que nak commandant la ñu yow nak jour bobu do won commandant xamna né ne dal ben daal benn grade benn grade daal boo euh, amoon non non ki la woon rek ni ñu koy wax dé am ah? na benn man daal marin laa marin marin c'était c'était très bien c'est une très très belle expérience oui oui oui j'avoue hein, franchement et puis euh, faut est toujours et ça me, reste dans la tête euh, tribord babor, stop tribord stop babor stop <laughs> naviguer à ça enfin euh, commandant Sougou Fara ak capitaine Diallo mi nga xamné mo ñu facilité liguey bi ñom ñep ñu ngi leen di gërëm di leen sant mbokk yi nag euh, fii la émission bi di jéxé may nuyu Ndeye euh, Madjiguène Diouf depuis Toglu de la part de toute l'équipe de la RTS en tout cas ñu ngi remercier Matar Ba ah di Be and Choose di mhm. souhaiter plein succès ci lepp lu nga xamante bi yéen a ngi koy def ah, di leen remercier aussi ci ci invitation bi donc di ñaan télévision bi mu RTS yépp mhm. yalla na ci yalla def barké amin mu gën law vraiment ya a ngi def liguey bu bu rafet donc di remercier aussi képp koo xam te ni jàppale nañu bien chose ba fii mhm. di remercier à ma maman mhm. ndax moo nekk sama papa nekk sama yaay mhm. di remercier ma famille à Ngaye Mekhe di remercier aussi euh, euh, toute l'équipe de bien chose ak suñu mbokk artisans yi surtout di remercier aussi Tata Soso Mbeng ak euh, Modou Makhtar Fall ñu jàpp nañ bu baax si si événement yi ak si si lépp quoi vraiment di leen remercier merci beaucoup El Hadj Thierno Dramé ñoo ngi lay sant di la gërëm saa su ne sa ñëw fii ci tam tam dafay am am njëriñ dafi faral di ñëw waay. d' <laughs> accord d' accord d' accord léegi bu Thierno Diallo ñëwee rek ma ne ko léegi ñuy alterner. léegi eh, tey su ma jëlee yow nga. exactement en tout cas merci c' toujours un plaisir de te recevoir. merci mm. beaucoup Thierno ñu ngi gërëm aussi euh, ay jakité ay kontaan nañ ci yow gis nañu tendance yi gis nañ daal saa su ne la nga ñuy indil sa ay coup de cœur am na solo. yaa xam merci à toi je respecte spectateurs yi gis nañ actuellement li xew. Mm-hmm. am na yu xew lu nekk ak fu mu war a dem. pas mm. nag lu li xew na rek il faut ma def ko. Mm-hmm. voilà très très bien il faut nit yi xam ni ñuy cerner ak lu ñu wara jël ak lu ñu wara bay recommandation bu am solo. Euh, mbokk yi maa ngi euh, remercier vraiment ñi ma àndaloon di liggéey yëpp euh, fàttewuma suñu xaritu téléspectateurs yi di fàttali nag ne Mariama Magasuba mooy jaar saa su ne ci sañse bi numéro téléphone am 77 634 44 11 mi ngi nekk fële ca Padoa Builders villa numéro H56 dinañ jox rendez-vous incha allah suba pour beneen émission tam tam bonne suite des programmes sur la RTS 2 au revoir.